jëme ci mbokk moom mu yëkkati ay kàddu jëme ci Cheikh Hadji Omar Foutiyu radiallahu taala anhu mu mel ni daf ko réeree waaye dañu koy présenté Cheikh Omar d'abord laataa ñu koy leeralal moom jëf ji mu jëf Cheikh Omar Foutiyu doy na sëkk ñu présenté la ko ci benn bayitu Sëriñ Babacar Si ba mu koy wax naan ko abu diini wa taqwa axu sidqi wal huda walam yarda ma laysa al aliya anhu radiya ci gàttal bu ñu la bëggoon a wax Cheikh El Hadj Omar Fouti yi mooy kan dañ naan la Serigne Touba mi nga gëm yaakaar ko bu dellu siwaatoon jamono fekk fi Cheikh Omar da koy tarbiiju Serigne Touba ñu ko wax dama yëri Jawharu Nafis ma nga fay wax kan mooy Cheikh ak lu Cheikh doon ci moom ak bët bi mu koy xoolee da nga ciy jàngee que ni bu Cheikh dellu siwaatoon ci jamono dajeeg Serigne Touba daf koy tarbiyu ji ndax sëriñam la. Euh, cheikh omar Foutiyu radiyallahu taala anhu ci jasi ji ngay netali ni tubaab yi dak nañ fi nit nangu jaaseem cheikh omar Foutiyu radiyallahu taala anhu 1864 la dugg ci xeer wi les disparus à 1890 ñi ni 89 ci la colonel Arsenal songu 1864 ba 1890 ci la Arsenal songu bi muy songu ségu fekk Amadou Cheikhou ma fa nekkoon dem ñooro doon seeti njabootam ga fa nekk Arsenal songu ségu yoon wi na mu demee ba mu dugg ségu euh, bu gudd na waaye ci tënk rek fa mu jaar ña mu neexal ña mu ger ba ñu jaarale ko ci yoon ba mu dugg ségu yépp gudd na la ko indi woon ségu sax du woon jaas ji sàcc or wi nga xamante ni doon nañu dégg ni mu ngi ci biir kër Cheikh mar looloo ko fi indi woon ci biir kër amadou cheikhou nga xamante ni fay ñëw di di di di di di di songu kër gi fekk na fa daanaka ñaar fukki waxande ak lu teg lépp fees tel ak or alal jooju moo ko indi woon foofu ginnaaw bi mu yégee nag ni amadou cheikhou voyagé na ma nga ma nga ñoro euh, euh, mamoudéri mu juk takku jaare ko ci ay nit ñuy wuyoo njaboot lañu taalibe lañu te te ñuy ay nit ñu dëgguwul ger leen ñu teg ko ci yoon gindi ko ba mu dugg euh, euh, song njabootu Amadou Cheikh Oumar jaasi ji nga xamante ni nag bokkoon na ci bagage yi dem ñoo ngi ko jëlee woon ci doomam ju ñuy wax Abdullahi Tall tolloon ci 12 ans waaye jom ak njàmbaar ak fit gu mu woon Arsenal tax na mu ni kii bu ñu ko rey nañ ko yóbbu tàggat ko boole ko ci suñu biir France yàgg naa def lu mel noonu France yàgg naa def ku mu gis ngay jàmbaar mu jël la boole la ci boppam misaal bi ma ci mën a joxe xool leen Mamadou gasama malien bi ngeen fi gisoon mu wane fi njàmbaar bu yàggul pour sauver euh, euh, euh, xale boobu nga xamante ni amaana bi mu koy def sax du woon pour sauver français da ko doon def pour sauver bakkan lan la France mujjee jël lam lu France mujjee def jël ko tàggat ko dugal ko biir biir biir biir biir biir sapeur pompier kon cest à France yàgg naa wër jàmbaar di ko dugal ci boppam njëkkewu ko ci Abdullahi Taal bi ñi colonel Arsenal jëflante jëflanteeg Abdullahi Taal bi mu duggee kër amadu Cheikhou gis xale bi ci fitam ci njàmbaaram mu jël ko ni bu ko kenn rey nañ jël xale bi indi ko indi nañ ko France fii tàggat ko ci école bi ñuy wax euh, école sincère mooy première lieutenant noir bu génnee ci école boobu noonu histoire bi gudd na waaye liñ lay bëgg a wax rek ni Cheikh El Hadj Omar Foutiyou radiallahu taala anhu maam Mor du nit kuy daw laaj ko Faidherbe ba daje naag Faidherbe bi ca Mali la ca xew histoire wax na ko xam nga ko kon dafa jot fim tolu, ngeen ngeen yaru ta yar seeni kaddu jot na fi jamono tollu ak fi réew mi tollu ngeen yaru ta yar seen kaddu parce que lo japp ni am nga ko ci sañ-sañ ba mën wara war wax ci kilifa lu la neex jappal ni nit amna luku lu ko ëpp fuuf te mën wax ci sa kilifa lu karaw mais amul chance parce que mag ñi soxlawuñu loolu te mag ñi xaaruñ ñu foofu fi réew mi tollu dañu soxla kuy feeñal alaaka gi mag ñi seqoon ci lu rafet ci lu baax ci luy boole njaboot gi mais pas di yëkkati loo xamante ni di génn kàddu yoo xamante ni day rëccal dënn soxlawuñu loolu soxlawuñu loolu te jàpp leen ni yéen a ngi tuumaal waa kër Serigne Touba parce que bu fekkee kuy wax luy attaqué këru diine yi Touba TV la koy waxee dañ naan waa kër Serigne Touba ñoo leen koy sant Xaadim Samb bi muy wax waxam ju réy ji ci Cheikh na Ahmed Tidiane Touba TV la waxee yow bi ngay wax ci Cheikh Omar Fouti Touba TV nga waxee keneen ak keneen aussi Touba TV lay jaar prêter leen bàyyi leen xel ci loolu bàyyi leen xel ci loolu te yar seeni kàddu yar seeni kàddu xam li ngeen di wax te xormal kër kilifa diine yi xormal leen nit ñi respecté leen nit ñi respecté leen nit ñi te am ay teggin ci kilifa ci kilifa yi gëm leen ki ngeen gëm xormal ko mais respecté leen nit ñi parce que nit ñi dañ leen respecté dañ leen xormal ñu bare bare ngi wax naan Mamour Mbaye Serigne Bass Abdou Khadra koy wax lo parce que dafa jégué Serigne Bass té yalla xamna ni bo démé Serigne Bass sax yegul kon mbàkk yu fay mi mom kër gogou na leen yar ngeen té seeni kàddu waaye mbàkk yu sax mom ku dégg ni mi waxé du du mom moy yar kenn ci ñuy défar seeni kàddu kon fay jot nak wa kër Serigne Touba yar leen ngeen di défar seeni